kon du ma toog ba 2023 ba seeni fen leer may daw kanaa man du ma góor. jërë jëf mbokk yéen toxnat Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafet lu ñu ngeen di toppee suñu chaîne bi ngeen informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim rew procès aji Sarr ak Ousmane Sonko ni ki démb nag yàgg nañu lool ca tribunal ba ba sax trois heures et quelque daal dinañuy rek amal bii lee atte di déglu rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di témoin ñi nga xamante ne ñoom ñooy sax la yool la ñaari parti yëpp ci loolu nag gannaaw ba xamante ni sax avocat def nañu plaidoirie bu mujj ka nga xamante ne moom moo procureur ba mu daal di rek defee réquisitoire bokk na rek ci nga xamante ni sax mu nga koy sàkku rek ñu daal di koy teg ay daan kii di Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye bokk na rek ci fukki ati kaso kii di Ousmane Sonko juróomi at pour Ndeye Khady Ndiaye waaye nag kii di maître a Hadj Diouf nekk kay layol ka nga xamante ne moom moo di Adji Sarr mu ngay sàkku rek ñu daal di jox ndàmpaay ka nga xamante ne moom moo di clientam bokk na ci un milliard cinq cent millions fa gannaaw nag audience ba daal di jeex ñuy joxante rek rendez-vous ni ki benn fan ci weeru juin ngir rek daal di amal atte définitif daal di rek joxe la nga xamante ne moom moo di verdict bi ci loolu nag ñu ngay gis kii di Ndeye Khady Ndiaye moom nag nag noonu sax mu nekk en état de grossesse très avancé daal ne rek tenir ba ca guddi waaye nag sonnoon na lool ça se voit ci rek nga xamante ni daal dinañ koy partagé moom Ndeye Khady Ndiaye waaye nag brave kele daal dinay rek génn daal di santaat yàlla bu baax a baax ndaam sax sonn na lool interview ba nga xamante ni sax ñi ñu nga ko doon sàkku ci moom ca guddi ga moom nag mu daal di ñaan rek ñu jéggal ko ko ndax jamono jooju fekk na daal di nay épuisé wu ci rek diir nga xamante ne daal na koy nekk rek ca tribunal ba ak état ba nga xamante ne moom la daal di nekk ci loolu nag ñu ngay gis ñi nga xamante ni sax ñu nga koy félicité rek ca courage ba nga xamante ne daal na koy am rek wax lép loo xamante ni rek ñu nga koy toppee ak sax la jot a xew ca salon bak na nga xamante ni sax daal di nay am rek réeru vidéo ci digganteem ak aji Sarr mu daal di défendre rek ay principe ba nga xamante ni sax ñenn ca ña teewoon rek daal di kontaan ci moom lool rawatina ba audience ba daal di jeexee rek ca guddi ga ñu koy félicité rek ndaam sax moom a yëkkatiwul benn kàddu ndax coono ga nga xamante ni rek dal dina koy dàcc waaye nag ñuy joxante rendez-vous rek ni ki premier juin atum 2023 ngir verdict final